acudu billahi min alcheytaani fi kulli mawdihin wa fi lawtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulilahi wa salla abada alallasi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lunqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abada waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 di sant ak a jaajëfal bu baax mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoo ngi e, tàllal seen loxo di wuy woote bi nga xam ñoo ngi koy woote ngir liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir xam naa bu ñuy jeexal xikma bi sax danañ joxewaat numéro yi nga xam ne nii ku ci bëgg a xam dara incha allah boo ci wootee ñu leeral la ko tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbali woon fan yi muy solo noppi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sallam wax na ñetti xadis yoo xam ne nii jullit bu ko setantal danga nga téye saw làmmiñ ci lu ko jarut ndax bu njëkk ba dafa wax ne jullit kat mooy ki nga xam ne ni jullit ñëpp mucc nañ ci ayu làmmiñam ak ayu loxoom waaye gis nga làmmiñam la jiital al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi beneen xadis ba mu ne li ëpp ci njuumtey doomu aadama li ëpp ci ay bakkaaram ak i njuumteem mi ngi tukkee ci aw làmmiñam maanaam pour pourcentage bi doomu aadama li muy def ci ay ñaawteef lépp mu koy jural lori tey ak ëllëg pourcentage bi làmmiñ moo ci ëppale moo tax mu ne aksaru xataa ibni aadama min lisaani rawaahu tabaraani am na beneen bu mu wax ni doomu aadama bu xëyee nee na cëram yépp dañuy ñëw jonguru làmmiñ daal di koy wër maanaam di ko di ko di ko ñaan njekk naa ko ay waaye ragalal yàlla ci ñun yow làmmiñ ñun kat ci yow lañ dépendre rek boo jubee ñu jub waaye boo dëngee itam dañuy daal di dëng moo tax mu ne isa ibnu aadama fa in al kullaha tukaffiru lisaana fa taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna rawa rawa tirmisi moo tax Sëriñ Tuubaa ci xoqal bu kaw sax day wax ne gaa yu baax yi nga xam dañoo sóobu ci yoonu yàlla nga xam ne ñoom dañuy dund ak tasawuf nee na néeg boobu yi ñu nekk kat kenu ya nee na ñi ngi ko taxawalee ci ñeent waaye gis nga noppi la ci jiital arkaanu bayit arkaanu bayti jamil xawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juufun tawilun baxdahu saharun wa xusla noppi la ci jiital moo tax sañ bay jaxate day wax ne wax day jañëw yiw di ñot diw ay di wàññi njariñ di yokki lor nanga koy waajal ba far ko ba yow te it amul xeex benn kenn mës ta dégg benn xeex wala mu gis ko lu dul ne xuloo moo ko indi xeex boo mës a dégg rek ba ci ay guerre mondiale ak yépp ay wax a ko indi ndax nit ñi kat duñ ne cell nekk ci seeni néeg jàpp seeni njàmbur di def lu baax ak wax wala ñu nekk ci seen bopp bam yàgg ñëpp jógandoo rek di tojante ay bopp loolu amut kon xeex boo gis kat xuloo moo ko andi te xuloo làmmiñ moo koy def bari na koy fekk ci prison ba tey jii boo ko laajee dana la wax ne wax jum waxoon ju néew moo ko fi andi te rëccu na ko te mënatu koo dabu ah dof ba it war nañoo yee dafa nekk ci dëkk ba waa dëkk ba ñu dendal am ku fa xewle ngénte waa dëkk bépp nag bëgg a dem ci ngénte la dof ba ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko ñun de dëkk sàngam lañ jëm ndax dafa am diw dafa amum tudd mu ne nu ngeen may def nag ñu ne ko ah xanaa dañ lay yóbbaale mu ngeen mu ne leen bu ngeen ma yóbbaalee de ma rey liir ba ñu ne ko ah mu ne waaw ñu ne kon dañ la fi bàyyi demutoo mu ne bu ngeen ma fi bàyyee it bu ngeen ñëwee fekk ma taal dëkk bi ñu jaaxle lool daan la waaw léegi koy def nag ñëpp jaaxle ndof mi na leen xamu leen nen nu ngeen may def ñu ne ko déedéet mu ne yéen daal yéen a gàtt xel rek da ngeen may yeew ci garab gi ci digg pénc bi ñu ne ah loolu xalaat la daal dem wut ay buum yeew ko ba mu ne ngodd ñu dem. yéeg ci seeni seret dal di dem dëkk sàngam ca ngénte la dof ba nekk fa ba naaj wa wëlbatiku mu tàng jër ñaqatooy xipp xiif lool mar lool te gisut kenn te mënta yeewi boppam mu jékki-jékki yëngal boobu dal ne dëgg-dëgg wax naa lu ëpp nag moo tax ñaare wax saa ku nit rëccoo rek fekk na mu jàll la muy def def na ko kon nañ téye sunuy làmmiñ ci lépp loo xam ne nii amulunu njariñ rawatina nag loo xam ne nii daf nuy lor wala muy lor sunuy mbokki taalibe wala muy lor sunuy mbokki jullit loolu mooy musibam mi ci gën a rëy yàlla na nu sunu borom defal tawfiq te jubal nu jubal sunuy làmmiñ ci wax aw yiw ak tudd yàlla e, mbaa ñu noppi ñoo ngi tàllalaat loxo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci liggéey bu waa daaray xikmatul mi bi nga xam ne nii ni ma ko waxee ci tàmbali bi